Euh, adama ci immigration bi mais par rapport di euh, problématique université Cheikh Anta Diop de Dakar tey jii ba yeneen université ñu balaa may tontu si euh, laaj boobu rek da nga may may rek ma nuyu ñu nga xamante ni ñoom la fekk fii nii mhm. di rafetlu di ñëw fii pourquoi parce que daf may renvoyer si kenn muy le doyen Mame Less Camara mhm. nekkoon koo xamante ni suñu mentor la woon papa la woon si man mhm. Euh, ma doon nekk si këram tout le temps di euh, ñaan rek yàlla xare ko àjjana voilà mais par rapport ak question bu nga posé muy question bu important c'est vrai que lu xew université dañ koy ñaawlu dañ koy nakarlu mhm. c'est vrai que euh, lu jotoon xew moom mooy lu nga xamante ni musuloon am université moom mooy lu demoon ba nga xamante ni daal am na taal bu fa amoon maanaam si amphi. Mhm. nga ñun nekkoon nañ foofu noonu nekkoon nañ sax ba bokkoon si kuréel yu nga xamante ne dafa doon jiite euh, leneen di fac de de droit faculté des sciences juridiques et politiques hmm. d'ailleurs euh, nee bu fi nekk sax seen plateau yi dañ ko xamoon période boobu noonu hmm. ba mu nekkoon ci fac lettre hmm. waaye euh, est-ce que loolu waroon na nekk solution maanaam ci dogal yi ñu jot a dogal léegi ni est-ce que tamit mettre nañ en place lu nga xamante ne moom mooy lu mën a conduire ba l'enseignement a distance ñu mun ko def correctement loolu dafa nekk ay questions yoo xamante ni dañ koy posé wu voilà mm-hmm. mais mm-hmm. daal lu fa jotoon xew nakarul nañ ko waaye mesures yi nii tamit dafa laaj ay accompagnement accompagnement yooyu noonu bu nekkee nag am na wala euh, mat na foofu mën nañ wax waa mais bu matul nag foofu noonu on dira non te pour terminer rek euh, université amoon na fenn foo xamante ni foofu la eggoon mais dem na ba léegi dafa régressé ba ñu bëri amatuñu envie sax dem université. d'accord euh, tey euh, Georges Issa mi ngi koy wax sànq ñoom ndongo yi li ñu bëgg a xam moo di ne dinañ commencer jàngi le 30 am déet moo gën a lii ñuy wax yépp jàpp nañ ne dilatoire la. waaw c'est vrai que dañ nekk situation boo xam ne dafa xaw a compliqué parce que euh, xam naa ne les autorités universitaires ñu ngi fexee di trouver les les voies et moyens pour mën a euh, étudiants yi mën a jàng am na ñoo xam ne def nañ ay propositions je crois pour euh, suivre les cours à distance. Mm-hmm. mais loolu aussi dafa am euh, des conditions parce que. Euh, je crois que bu ñu naree opté pour euh, c'était les cours à, euh, à distance. Mm-hmm. Est-ce que tous les étudiants seront au même niveau? parce que am na étudiants yoo xam ne bu ngeen ko fàtte am na étudiants yoo xam ne ils sont loin de Dakar est-ce que ñooñu am nañu les moyens pour mën a suivre des à distance. oui est que fu ñu dëkk am na électricité est-ce que ñoom ils ont les pour mën di jënd ay ay pass di di comment on appelle di connecté wu. parce que là les cours à distance ça va avec la connexion internet. Mm-hmm. est-ce que maintenant tous les tous les étudiants seront sur le même pied c'est ça le problème. il y a des gens bon peut-être euh, tu me diras que les étudiants ñoo xam ne ñoo nekk dans les villes seront favorisés par rapport ak ñoo xam ne ñu ngi si àll bi euh, am des problèmes de connection am problème courant am sax problème de de de, de, machine ordinateur. parce que mmh. connexion parce que cours à distance dafa laaj ngi am au moins ordinateur. d'accord balaa mooy wax ay affaire connexion ay affaire courant et cetera. d'accord mais Pape euh, tey jii est-ce que li nit ñi njortu moo di ne on va direct vers une année blanche suñu gisee Mbicog Mballo bi ak ni ko Issa waxee sans que énumérer quoi yi nga xam te ne dilatoire bi nga xam te ne moom la ñu engagé. Euh, moi je crois que le euh, gouvernement manque de courage parce que li ñu waroon def kay <laughs> mooy dès à présent nañ décréter une année blanche je crois que. moo gënoon yomb dilatoire bi nga xam ne moom la ñu bëgg a imposer seen bopp imposer ko étudiants yi. Euh, il y a des grèves dans le passé fii des grèves il y a eu des saccages à l'université même si aujourd'hui euh, benn chapiteau bu ñu lakk et quelques euh, œuvres ils veulent en faire un prétexte pour ne l'université traverse un problème d'insécurité c'est-à-dire que boo leen dégloo ñoom seeni wax bay mm. créer une commission de sécurité mooy que on veut faire de l'université un cantonnement militaire parce que li fa Maguette seen mii dépensé ne moom la fa dépensé en matière de sécurité su dee loolu yëpp mënul assurer la sécurité de l'université mais parce que ça veut dire que kon quelque part il euh, de quoi euh, avoir mais une chose est sûre mooy que l'université c'est un lieu de rencontre mmh. un lieu de rencontre par excellence pour jàng pour xam-xam université la ñu war a régler la nga xam ne mooy jur problème bi mooy l'implication de politiciens au niveau du campus universitaire ñoom ñooy jël seen i di leen jox koppar ñooy jël seen étudiants di leen di jox ay gànnaay ñooy jël seen étudiants di leen manipuler di leen utloo di leen euh, jël jëlloo ay mots d'ordre de grève ainsi de suite ainsi mais tey jii rien que pour une affaire politique politi de politique politicienne. Hmm. moom moo ko jàppee. non c'est une affaire politique de politique politicienne. d'accord on va sacrifier des étudiants <coughs> waaw parce que on est vers une élection présidentielle et sans le dire mooy jàpp nañu que étudiants yi su amee dara manifestation ils vont sortir te s'ils sortent ça peut être Euh, voilà l'objet ça peut être motif de casse. mais est-ce loolu jar nañu sacrifier toute une génération. Issa yow miy côtoyé étudiants yooyu tey ci ak li nga gis si année blanche la ñu jëm wala yaakaar nga ne ces cours à distance la peut sauver l'année scolaire l'année universitaire. bon euh, cours à distance yi mënul sauver année euh, universitaire lenn lañ mën a def mooy euh, forcer étudiants yi xëy na ci yoo xam ne mën na leen a bañ a neex parce que nag euh, am na ku ñu fi invité fii maa ngi ko koy wax naan ko ba moytuwul la ñu daloon en 2014 mën na leen dal mm. muy dem ba ca fin ba nga xam ne da ngay dem ba ñàkk yaakaar peut-être boo amatul li ma li fi gën am li fi sës mm. mën nañ xëy tegal leen année session unique yoo xam ne xëy na dina métti ñoom parce que université soo defee examen boo boo matalul da ngay am droit dem rattrapage loolu mën nañ leen ko defal cours à distance yi moom ce qui est sûr mooy dinañ yàgg-yàgg dinañ ko dindi ji euh, xëy na nag mën na bañ a àgg sax comme fi ko ñu bari foogee parce que autorités aussi ak li ma gis ni université muy waa SAES euh, xeex bi nga xam ne moom lañ jël parce que buñ bàyyi woon rek étudiants yi comme li daan am bu njëkk étudiants yi di grève ay bourse ay nangam mais bii dafa nekk combat boo xam ne ñoom ñëpp ci sóob seen loxo muy jàngalekat yi muy ndongo yi donc kon daanaka ñu ci des mooy administration bi administration bi gëwuma que ni dina mënata trop ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo nekk les acteurs de l'université muy jàngalekat yeeg ñu fay jànge parce que ñoom ñoo ëpp solo ci université bi jàngalekat yeeg ñoo fay jànge parce que sans ñoom ñële duñ fa nekk hmm. donc loolu jàpp naa que ni war nañ ci mën a dem mais beneen bi mooy euh, liñ équilibré wul mbir yi parce que boo xoolee am nañ université yu jàng xëy na bariwul mais am na université yoo xam ne eh, mooy mm. eh, naree dem ci loolu seen nouveau bachelier yi nga xam ne ñoom lañ orienté di bërki dem rek maa ngi ku ñu orienté mu naan ma man de eh, a am bac nga xam ne day am stressu est-ce que dinañ jàng ak duñ jàng alors que ñoom am nañ décision yoo xam ne war nañ ko mën a jël chapiteau bi nga xam ne moo lakk kenn rafetlu ko la fa lakk yëpp loolu pour man sax daanaka beneen débat la parce que toppaat ci di ko wax di ko wax mm-hmm. alors que ñëpp gis nañ ko fekkee nañ ko ñaawlu nañ ko li ñu war a def mooy apporter des solutions solution yi nag du lenn lu dul fexe ba ndongo yi mën a jàngi am na amphi ay amphithéâtre yu fa nekk yu mën a jàngi amphithéâtre yi kenn benn département moomul amphithéâtre mm-hmm. ku nekk waa fac droit mën nañoo jàngee si fac lettre loolu moom ci université la bokk waa fac lettre mën nañoo dem fac droit donc du ay problème li ci des ci année bi war nañ ko mën a sauver bu fekkente ne en tout cas ñoom ñëpp ñoo bokkandoo leen luñ bëgg muy njàng mi gën a ñoŋ au Sénégal d'accord